salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfal di leen nuyu di am contentement ak mbégte janoog yéen sax suba nga indi leen gën a fës ci bopp xibaaru làmb ci noonu nag damay nuyu borom kër gi rek Pape Thialy Seye di ko ziar bu baax a baax di nuyu sama gars yi Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la mais tey da gën a nice te yaa ngi mel ni tàngal meew yaa ngi mel ni pere bu nu màcc rek ne ko tuf macha allah yàlla la cat tey. Assane Wala nuyu naa <laughs> ne nag fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV yi amaan mbégte jàkkaarloo ak ñoom. gis nga de moom mooy ruubekatu revue bi mu ngi noonu sa revue de l'arène nag fii ci Leewtoo TV Uri moo leen koy may nee leen mardi 9 mars 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Modou Lo les VIP à l'heure de la citoyenneté. jërëjëf Ndeye Mbacke gannaaw ba mu nuyoo internet yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV noonu nga ko waxee noonu la ko journal bi waxee ñi ñuy wooye ay VIP ci biir làmb ji ku ci mel ni Balla Gaye Ama Sène ak Gris Bordeaux ak Modou Lo ci nekk euh, yëkkati nga sa kàddu gannaaw ba nga jëlee sa ngemb tegee ko fële ñaawlu xew-xew yi nga xamante ne yi nga xamante ne bii jot naa am ci biir dëkk bi. dëgg la Mbaye Babacar Balla Gaye de Gris Bordeaux Modou Lo les la la ko journal lamb waxee na euh, VIP yi di Modou Lo Balla Gaye 2 ak euh, Gris Bordeaux summi leen seen euh, ngemb léegi nag sol nañ seen mbubu citoyen xew-xew yi amoon ci dëkk yi temps yi lan àddu Balla Gaye moom nee na bëree te dëkk bi amul jàmm nee na nag euh, peuple sénégalais ñoom génnoon exprimer lu leen naqar naxari euh, Gris Bordeaux moom lu wax ne ne discours ministère de l'intérieur wala ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moom nee ne discours boobu dafa menaçant dafa xawoon a ñagas torop waaye nag nee ne euh, xew-xew yëpp moom njaaxare ak tristesse la ci àndee woon kii di Modou Lo moom nee ne avant muy wax combat am na wax dëkk jàmm ci dëkk bi ba pare waaye nag mu ngi ciy teg di jaale képp koo xam ne nii génn nga sa bakkan génn génn na wala sa bakkan rot na ci manifestation fii amoon ci semaine bi. Assane jàmm mooy lépp yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi. amiin moo tax ñu koy war a ñaan tout le temps. mu nga noonu moo tax combat du 4 avril ces derniers réglages Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Mbaye Babacar bu mel ni ku ci nekk ci mbër yooyu yaa ngi teg sa stratégie pour yóbbu ndam li sa kër. ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi teg ay pexe ngir jël ndam li combat boobu war a am ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 war a am le 4 avril incha allah te yëpp di ko xaar suñu papa Gaston Mbengue taxawal boobu le combat ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi ay pexe dara terewulaal nelaw lu dul daan sa moom. dëgg la Mbaye Babacar Mortal Kombat du 4 avril dernier réglage euh, Lac 2 et Eumeu Sène peaufinent leur star stratégie noonu la ko suñu làmb waxee nee ne combat bi war a dox ci Eumeu Sène ak Lac de Guiers ngi ci dernier réglage yi Lac de Guiers nee ne après bi mu nekkee plage u Mali bi di entraîné wu léegi nag mu ngi ci école élémentaire bi di Souleymane Baal bu nekk ca Géejawaay nee ne foofu la fa nekk ak coach Arona Salam nekk foofu di préparé pour euh, le jour J mu mën a nekk en forme répété ay gaawam dañ ko daf ko nëbb kenn mënul xam fan la Eumeu Sène di entraîné waaye li ci mën a xew daal mi ngi ci roxam di entraîné bu baax a baax. ah jour le avril dana génn bu nëbboo tamit le avril moom lu mën di xew. gars yi daañu ko gis. forcément daañu gis li mu andi tamit. avant boobu sax war na am face à face euh, njortu naa ko dina génn quelque soit alpha. nu mënul ñàkk la faa mu am. incha allah mu nga noonu naka noonu. huit ans sans victoire Lac Rose. mal appui. Euh, Lagrosse mi nekk écurie Fass euh, juróom-ñetti at a ngi nii déggul euh, yaa jël ndam li gannaaw bu mu toogee juróom-ñetti at bëriwul moom mu ngi nekkoon ci lu bon jëm ci lu gën a bon. dëgg la noonu noonu la ko journal bi waxee. huit ans sans victoire Lac Rose de mal en pis maanaam mi ngi jógee ci lu bon jëm ci li gën a yées. Mhm. noonu la ko waxee toog fu juróom-ñetti at amoo victoire également lu métti la suñu làmb nee ne euh, Lac Rose mi tegalee na ñetti défaite Garga Mbossé moo ko daane le 5 janvier 2014 Sa Thiès daane ko le 31 mai 2015 mu teg ci également beneen défaite euh, contre euh, Moussa Ndoye le 31 mai 2018 Lac Rose moom mi ngi am 13 combats 8 victoire cinq défaites. ñu koy ñaanal rek mu dellu suwaat ci làmb ji jëlaat ay victoire am ndax ku amoon taxawaay la ci làmb. moom Lac Rose euh, ku amoon taxawaay la mais également Fass dafa misé woon ci moom. Mm-hmm. ne waroon na fi nekk ay tigre de Fass ñu ngi ko doon séntu ci moom mais malheureusement benn blessure ci genou bi moo ko gàllankoor ba temps yi daal affaire am baaxul dara. et puis xale la dara weesoogul na gën a gën a waaj rek gën a ñëwaat ndax. mën na dabuwaat lépp. dëgg la Mbaye Babacar xale la te mi ngi entraîné instant yi dégg naa ne faju na ba wér Euh, mu ngi ñëwaat bientôt ci làmb ci kon ñu ngi koy xaar ba xam li muy andi. kon gars yi xaarandi leen ko Lac Rose euh, Tyson gin gi neewu mbuur montagne moom ca la wax ci journal suñu laam nee na Baye Mandione ne peut plus m'éviter. moo nekk euh, écrit bii di écrit Mbour Mbour montagne Tyson gin gi neew ñëpp xam ko mu nekk mbër ma nga xamante ne bii combat ci nuy baax lay doon du am ruq bu sedd arbitre day soufflé rek mu tuur lay ko fekk. moom noonu lay bëree moom nag nee na fi mu toll nii combat ak Baye Mandione ñor na xom lu mënatul a ñàkk la bàyyi ma Mandione rek la bëgg a bëri. dëgg la Mbaye Babacar euh, Tyson gi neew mi ngi nekk ci écurie Mbour mi nga xam ne nii Pakala moom moo ko jiite Tyson gën gi neew bi moom moo nekk lien naa moom moom nag lu mu wax nee ne euh, Baye Mandione amatul droit wala mënatu ko éviter ñoom ñaar faw ñu laale mais également wax na ci nervi yi xewoon ci temps yi ci dëkk bi nee na ñoom mbari duñ ay nervi Maguette euh, Sène nekk directeur COUD moom moo dem dem département am recruter fa ay nit pour ñu euh, saytul ko sécurité bi ci ICAT. nee na ñoom dun ay nervi ay dañuy dañuy euh, dañuy. Euh, protéger étudiants yi plutôt que di leen indil ay violence. maanaam ñoom daal dañuy aar ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy. étudiants yi exactement ñu ñuy xeex. exactement. loolu leer na gala de lutte jamaïcain en Gambie Boy Balla ba building par quatre appuis waaw ñu xam nga ne dimanche bi passé euh, jam production yi euh, ñu gën koo xam ci jamaïcain mu nga woon fële ca Gàmbi tëggoon fa làmb ju làmb ju neex nag ki nga xamante ne bii mooy Boy Balla moom moo jël ndam li ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy building mais nam ko daane asal defe naa quatre appui la ko daane. dëgg la Mbaye Babacar gala de Jamaïcain en Gambie euh, Boy Balla ba building par quatre appui nee na combat boobu ci quatre appui la mujjee combat bu gaaw la nag après seen bi bi léewtoo benn song la euh, booy bàll arrêt kii def kat appui waaye beneen combat am na fa également mu waroon a dox ci amical ak euh, bébé xarañ nee na bébé xarañ daf ko mujj a ñàkk combat boobu. amical moo daan bébé xarañ ci boobu le combat. oui. Sala Bigué communicateur traditionnel moom moo am sekk ak waxtaan li nga xam te ne mooy euh, Leewtoo ak. Mohamed Ali et Manga 2 m'a plus marqué. ki ki wax loolu kooku mooy Salé Bigué di communicateur traditionnel ba nga xamante ne bii ñëpp ràññee nañ ko ci milieu làmb ji. nekk nag da nga xam ne fu làmb am rek macha allah dañ ko fay gis muy euh, yëkkati li nga xam ne moom mooy ay kàddoom moom nag bi journal bi sekkee moom waxtaan laaj ko. ban combat moo la gën a marqué ci sa bopp. Mm. combat bi mu wax mooy combat bi doxoon ci diggante Manga ak Mohamed Ali. dëgg la Mbaye Babacar Sala Bigué di communicateur traditionnel comme ni nga ko waxee moom nag rubrique Leewtoo buy am chaque mardi ci suñu làmb lañ ko invité li mu fa xamle wax nga ko nee ne bi ko gën a marqué mooy combat bi doxoon ci diggante màng ak euh, Mohamed Ali wax na également rêvam li mu gën a euh, rêvé ci àdduna mooy mu nekk milliardaire waaye wax na fa également benn objet indispensable boo xam ne nii mooy objet boo xam ne mënul dem fenn te ko nee na moom mënul génn te yóbbaalewul carte d'identité di daan di bëri na ci morom. ñàkk génn te ñàkk ay génnaale carte d'identité moom dara wu. orang ne la fekk fu nekk. <laughs> waaw waaw mais tamit wax na lu am solo ci biir interview bi. li mu gën a bëgg li mu gën a bëgg mooy nekk milliardaire loolu yaakaar naa bëri na ci morom de. mooy réewu ñëpp ku nekk wax dëgg yàlla yaa ngi rêvé un jour nga nekk milliardaire. loolu bëgg nga ko asal <laughs> ah. non loolu duma ci ci <laughs> loolu nag euh, tension bi amoon ci gis nañ ko ñëpp mbër may euh, limousine libéré. limousine ñëpp ràññee ku ci gannaaw Ousmane Sonko. mu nekk ki nga xamante ne bii moom mooy garde rapproché gannaaw bañ ko tegee loxo léegi nag mën nañoo wax ne yoon bàyyi na ko. dëgg la Mbaye Babacar limousine ñu xam ko ni mu comme ni nga ko waxee moom mooy chef du protocole sécuritaire bu député bii di Ousmane Sonko te ñu jàppoon ko temps yi moom nag journal suñu làmb nee na libéré nañ ko ginnaaw bi mu nekkee garde à vue libéré nañ ko depuis dimanche maintenant mu ngi euh, ci ay activités am na daal nekkatul euh, ci loxoy gendarmerie yi. ñaan na jàmm yàlla. amiin retour Malick Ndiaye transit fou quatre ans après. Malick Ndiaye mi lay ñu gën koo xam ci 37 fou maanaam <laughs> nu ma mën a waxee tur bi sax. juróom-ñaar eh, fanweeri dof. ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar la boole ci bopp. Mm-hmm. mi ngi noonu moom nag dafa am combat bu doy waar Assane. Mm-hmm. ki mu war a bëreel mooy Bou Siteu xale bu bëri coow. moom kandaa ba mu toogee li nga xamante ne bii moom mooy ñeenti at bëriwul. jël na xale ba nga xam ne coow la macha allah bëri na. dëgg la Mbaye Babacar 37 fu ñu xam ne ñu Malick Ndiaye Malick euh, Ndiaye ñu gën ko xam ci 37 fu mu nekk écurie Tay Shinger moom nag depuis quatre ans amul combat mais mi ngi war a jàkkoontoog euh, saison bi euh, mbër mii di Bou Siteu ni comme ni nga ko waxee mu nekk mbër mu ndaw te bëri coow xam naa daf ko jël moom 37 fou pour que mu mën a revenir puisque boo toogee quatre ans. Mhm. war nga jël mbër boo xam ne nii boo ko daanee dina la mën a permettre nga revenir euh, au devant de la scène. dana la mën a delloo si waat ba ñëpp xam ne yaa nga fa nga nekk. exactement exactement comme noonu noonu la sa waa defoon mbëru mbëru caaroy ba. <laughs> Onde le Fou Onde le Fou noonu la de woon gëj làmb ji dikk jël Ada Fass ko ba ko daanee dafa revenir mm-hmm. mais bi nag dina ndax xale bi di Bou Siteu dafa bëgg a yéeg yee Bou Siteu combat am du yomb te bu gannaaw nga macha allah dafa am gannaaw kon 30 30 30 37 fii ngay jaare yéeg wala fii ngay jaare booy wàcc ah, ah, xale la nag ak mag ndax Malick Ndiaye moo gën moo ëpp expérience ci làmb mm-hmm. mais Bou Siteu dafa nekk xale ba nga xamante ne bii dafa am gannaaw te it coow dafa am coowu làmb dëgg noonu Serigne Ndiaye 2 pour la confirmation. Serigne Ndiaye 2 moom mi le dafa war a ñëw confirmer. xam na ne am na combat digganteem ak limousine nekk mbër ma nga xamante ne bii ma nga biir Fass Fass yaakaar ko mu war a ñëw dëggalaat boppam jógee ci victoire war a ama war a victoire di ko xaaraat. dëgg la Mbaye Babacar Serigne Ndiaye da mu nekk espoir écurie euh, Fass nag koo xam ne nii Fass dafa compter trop ci moom journal suñu laa mu nee ne euh, Serigne Ndiaye da pour la confirmation pourquoi mu wax lii parce que Serigne Ndiaye da dafa jógee ci benn victoire contre Libidor loolu euh, daaw la xewee woon ren nag mu war a dajeek mbër mi di mu nekk ci école de lutte Balla Gaye ne journal bi daal nee na dafa war a daane Sokosim pour mu mën a confirmer li mu defoon daaw. Lutte envisagée pour le mois d'août. Siteu souhaite mieux Papa Sow recevoir. si euh, combat boobu di dox ci diggante Siteu ak Papa Sow xam na ne ñaari mbër yi ku ci nekk yaa ngi ci sa ci sa waajtaay euh, Siteu moom ma ngay ma ngay ma ngay waajal bu baax a baax nee na bu sañoon sax combat bi gën a gën a jege ndax pare na ki nga xamante ne bii moom mooy Papa Sow moom tamit yëkkati na kàddoom ci biir journal bi. dëgg la Mbaye Babacar leur combat envisagé euh, pour le mois d'août Euh, si te souhaite mieux euh, Papa Sow de voir noonu la ko journal record waxee nee na daal seen combat bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg taxawal ci mois euh, août bii di ñëw nee na si daal bu sañoon ñu rapproché date bi maanaam au lieu que ñuy dem ba mois d'août bu dee am na benn mois benn date bu gën a jege promoteur leen loolu loolu nag ki ko wax moom mooy Max Mbergane ci journal bi Max Mbergane moom mooy manageru Siteu Papa Sow moom li ñu wax nee ne moom euh, père ba muy président écurie nekku fi dafa voyagé mais bu ñëwee dinañ ci waxtaan xool ban décision la ñu jël finalement. Siteu wax na dëgg waajtaay bu yàgg baaxul ci mbër. dafa yàgg combat bi mi ngi waroon am le 5 euh, euh, le 5 avril je pense 2020. donc am na plus de bientôt am un an. yàgg na trop. macha allah yàgg na reprise des des compétitions avec le Covid 19 mu mel ni journaliste yi ku ci mel ni Aïcha Faye ak Ndeye Kumba Fall ñu ngi càmbar li nga xamante ni mooy huis clos bi mbay yi nga xamante ne bii euh, dañ leen a ràññee ci làmb ji ñu nekk ay journaliste yu ku nekk xam na ne démb nag moo nekkoon 8 moo tax record beral leen loxo. seeti jigéen ñi jox leen seen wàll ñoom tamit ci làmb ji ñu joxe seen ay xam ne moom mooy door gi nga xam ne euh, saison bi war na koo dooraat ci anamu huis clos ñoom ñaar andi nañ ci seen xalaat. dëgg la Mbaye Babacar Aïssa Faye ak euh, Ndeye Kumba journal record daf leen jox kàddu pour ñu wax ci wàllum huis clos bi Aïssa Faye moom moom mu ci wax nee ne football bi ak basket bi reprendre seen activité waaye nee na xamb dafa làmb dafa xaw a spécial ndax làmb nee ne affaire privé la ay promoteur ñoom ñoo jël investir seen xaalis ba pare di ci xaar euh, rentabilisation te rentabilisation boobu bi yi lan war a jaay pour ñu mën ko am te billets yi avec huis bi duñ ci euh, amateurs yi du ñëw donc promoteurs yi dinañ am problème foofu ne moom nee ne loolu mooy problème mu huis bi ndey ku ma faal moom it nee ne benn euh, kii làmb benn discipline bu impact la boo xam ne ni euh, Covid bi daf ko impacté trop nee na lu tax mu impacté ko euh, ay weer a ngi nii ñu tëj combat yi ay weer a ngi nii làmb amul te loolu lu impacté làmb la. muy noonu ah, di la jaajëfal bu baax Assane waa loolu moo nekkoon di gën a fës ci boobu xibaar yi mbay looy tàggatoo yi xanaa jaajëfal ñëpp suñu mbokku internet yëpp ñu ngi topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam di wax ne euh, Ndeye Mbacke ñii laajte sa numéro ci internet bi nag nañ ko bàyyi. am na boro borom. bu kenn laajal numéro. waaw waaw dama koo gis. yal na yàlla doole jàmm ba suba ak jàmm. asalaamaaleykum. mais Mbacké di la remercier comme d'habitude di remercier waa Linguère euh, Yacine Fall Fama ñoom Mansour di leen jox dig daje bu suba jàmm incha allah. oui ma aw ma dara ñëw leen yéen ñëpp. <laughs> di leen jaajëfalaat bu baax di kontaan yéen bu baax a baax internet yi gis naa commentaire yëpp vraiment damaa kontaan je suis même ému di leen sant leen gërëm yéen ñuy topp fii nga xam te ne mooy Leewtoo TV. ci nuyoo bi nag damay daal di jàll dem ba fee Mali ca Bamako fekk fa Fatou Kiné ndaw di ko nuyu bu baax a baax ah nee naa ne kooku mooy rakk ami ko rakk mami Ndao dem Casamance revue bi vraiment sax dañuy topp ñi nga xam te ne mooy Leewtoo TV di leen kontaanee bu baax di jox di daje ëllëg ci Leewtoo TV.